som na p a n k i d e r Ez m a o w Нам обжиться надо много. Мы так не легко далеко. Он будет думать, Я на память. No, filmó para el bar. Kurdo Ampros. Ampros.

Devam hocam. Evet, lütfen. すみません。

进来过。

frente la, non non non loolu baaxul. loolu tamit ñoo ne duukaay dafa am nekk ci biir wax dëgg yàlla yéen a yéen a kàddu yi boo jógee rek ne duukaay wala ñu ne ñu war a xool suñu xool rek ah sinon on va laisser la xool voilà. léegi waaw am na sëriñ bi def euh, premier ministre bëggoon na def tête à tête ak xalifa bu bëggoon rek ñu rocceeku ñëw fii ci salle bi njaboot gi ñu ñëpp ñu àndandoo bàyyi ko mu mën a gisanteeg ñoom kon bu paree rek ñu dellu si